am nga solo ku ko amul amoo solo ku wéeruwul yomb ba max suñu borom nag ak xaralaam ni mu koy boo ko seetloo ak xaralaam bala laa def kilifa dalay wutal kilifa ba noppi bala laa def kilifa dalay wutal kilifa ba noppi kon li ñu wax fay bor ni la sa kilifa def boo amee xel ni nga war a def ki nga yilif kon bu ñu dee fàttaliku kilifa yi war naa am fu ñu ngeen war a féete war naa am lu leen war a fàttalikoo war naa am lu ñu ci mën a jànge Serigne Malick Bathily Sy radiallahu anhu 1946 ci Koungheul ab tab ab tubaab da koo laaj lu yàq kilifa mu ne ko ñàkk jub ak ñàkk njariñ ñàkk jub ak ñàkk njariñ bi mu ñëwee ci kër gi ñi ñi di ko laajaat mu ne ah, tubaab ba de jotaay ba laa bañal mu mu loolu waaye lu yàq kilifa ëpp na loolu daal ne yéen yàq kilifa ñu ne ko yent yan mu ne lu mu xam wax ko lu mu mer xul ko luñ ko wax mu wax ko lu mu am jagoo ko ne loolu yàq kilifa loolu dalul kilifa yi nekkoon fii loolu dalu leen sëriñ Mor Borom Saam buñ dee fàttaliku njariñam yaakaar naa ne mënees na caa tudd rek nekk fi moom ñàkk a toog toogaay toogaayum neen ku nekk ak moom faw nga ne ci dara gannaaw bu duyee biir yi ba noppi ni ni ko mag ñi waxee gannaaw bu duyee biir yi ba noppi kenn ku nekk ku mën alxuraan mu jox la jukki ku mën xasida mu jox la ku mënul mu jox la kurus waaye kenn du taw loxoy neen fi moom sëriñ Basiru Jóob Sàmba xari daam radiyallahu anhu moo ma nettali ne sëriñ Mudu Maamun jóge na Daaru Salaam ñëw fii ci Mbàkke ànd ak ku ñu wax Baye Mbay Njaay faa kumba biñ ñëwee mu ñuy boroom sàmm siyaare ko joxe àddiyam bay dem sëñ Mor daa téye ci loxoom ne ko doom na nga fexe ba bu la kenn ëpp biir yu mu duy wax nañ ne loolu ñam woowu sëñ Mudu Maamu daan def gannaaw bu mu ko amee ci ndigal ci sëriñ Tuubaa la ko ci so soññan baatub sëñ Mor Jaara boobu ca la bokkoon sëñ Mor Soxna Jaara kon moom njariñam nattable su ko moo tax ma ne liggéeyal na lislaam jariñal na yàlla bindeef yi yàlla nañ ko fayal yàlla nañ ko yàlla fayal loolu nag yaara koy tax a man di jàmbaar di njàccaar te loolu la lislaam soxla nekk jàmbaar nekk njàccaar defe naa am na ko ko junj ca euh, sëñ ba juróom koy nettali ci sëriñ Mbusoobe jamaa sa jaata wal xuduuxa li rabbihi maa axsanal mihraaba fil mihraabi boobu jàmbaar la woon ci ci diine waaye njàccaar jàmbaar la woon ci xare waaye njàccaar la woon ci diine loolu nag dafa am solo yàlla na ñu yàlla defal dégg ak topp yàlla na ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet ci barke Serigne tubaa kon Serigne Abo moom sëñ Jili Gànnaar xam ne dafa dëgmal thème bi kon moom la ñuy woo mu ñëw jàng xasida googu ñu door a yeggale waxtaan wi sëriñ Abo mi ngi ñëw waaw kay lii dafa am solo lool te jamono laaj ko moo tax ëpp naa sàggane waaw sëñ aboo kon bisimilah bismillahi arrahmani ay waay ku may abal junjuñ ma xamle fii samab sëriñ li fuur ci xel mi ciy njariñ mënee su ko misaale xanaa mosot xalim yu yees ak àlliwaa ki daayi xoos wat xandi duy ko ba mu fees màngug cofeel dàkku layam way naa ko dellu ko sa saxaw kañam di sàkkuwaat bur yàlla daas sunuy xalaat bañ woy ko ñépp xam mbiram waykat yi wayle leen ma moor bàyyub sëriñ abdul gafuur géejëm gu yaa gi ku ca nuur say rootu fees ak ay xikam muhammaday dëggu duram mu muhammaday dëggu turam mooy taawu soxna jaaratam cheikh bamba mooy mbokkum ndeyam mu feeñu mbàkke dib dëkkam baayam ba mooy suñ mbàkke moor ñooñ bàlla moo ci ëpp muur ngir la ko yàlla boole jóor mooy mbooti leeri askanam ma wax la lëf ci ay jëfam ngir moom dafay kuñ lëm mbiram doon ku ñu feesali ndabam moo tax mu nëbboonub cëram waaye su ngeen digloo ne muut ma dellu saabal leen yu xóot yoo xam ne yëf yu tuuta tuut la ciy mbiram na ko xam yàllaa ko séddoon ndabi may mu daa ca reggal ña ko ngoy añal na reeral du ko nay jox cam su nekk ak yayam dénkaane aw yiw ak a ñaax la dëkk woon te musta ñaax xel mënu koo xiyaas ci mbaax ak dëggu gaak sellal ngëmam daa teel a tënku aw ci yoon def royuwaay ña jiitu woon di jëfu yiw subaaki ngoon wut yàlla sàkku ay ngiram moo jaglu woon ci ab juddoom moo tànn woon ci aw meloom doon ko ñu teddali jikkoom lañ bàkke woon ngën jëb sangam julleeg zikar la daa njëloo ci alquran la tegtaloo mboorum yónneen la daa xeloo di xoos ci géej ji xam-xamam fóore ya naw nañu tabam sëriñ sa sedd nañ ngoram maslaa la moome ay kogam gor yépp goore ci ëttam ak jokk bokk moo ca man moo man ci gan di njax njaxlaf ak sagan bañ farlu seere ak njubam njub gaa waral mësula tooñ mës la fayantoog aji tooñ te tooñ luwul du farku tooñ mbaa gor su wàcc war waram daa gor di gar di dundale xéewal yu lew la daalelee waa mbàkke ba mu leen sàkkalee lañ takk seeni ëmbi ndam wombat na mbooloo ba ñu raw defar na mag tàggati ndaw xamal na leen ba ñépp ndaw ña génne woon fa ab ëttam goroon na ay tool di ko bay di yar njabootam ña ko ngoy xiir leen ci njub fekk leen ci mooy bañ dàkke leen ci pas-pasam moo sañc ndokk sañc Shaam mbàkke cëroo fay caami caam ak misra ak paal ne manaam wuutaat la woon fa mbàkke tam dayob tabam gi yéem na leen dugaantuway laajëka béen tamam amul xejjaki seen buy joxe day bellil kanam gàddul na aw nit seeni njël mbooloo mu yaa di leen dundal saxoo ko warlu seen ndimbal siiwe na war ma taggam fit waa waral mësula tiit xër gaa waral mësul na déet mësti la wenn xeet ngir wuta yàlla ci laram moo war fasu shariatu soobu ngiram xaqiqatu ba am ba am dayob ijaabatu ba kenn seen lu pëndam lam aadawoo ci ay subaam mooy woor te jombuluk xaraam di raasi buur ba lamu daam woo ndaw ña jox ko ne bindam bu jàngalee ba tàkkusaan muy tuub di jàng alxuraan yeewi gàtt ba mu daan berndeele bis bu new nitam bu jant soo ñëpp ne siiw bokkub jataay ba di fi géew ñu yakk ndab ya ñëpp teew ñu reer ba suur ci aw ñamam ñu dajaloo mu leen di waar daa leen di nettali xeyaar seen baax yi ak yoon ya ñu jaar ba kum ci xam nañuy mayam bu guddi xaaje mu jawal ci naafilaam dadaa matal téeméeri rakka rotal kaamil bu sëkk ci matam saxal na loola biir këram ba bis ba mujj ci dundam biib sang nee na luñ mbiram fu saytu dàqif ak lëndam la mu jagoo ci xam-xamam yéem nay arab yéemi ajam daa gotti mboole ay kemam foraatuwul woonuk wayam moom lañu daa gàggantikoo ak delluwaay buñ daa sagoo moo doon imaam ba xam nga ko minbar ba jooy na ak demam doomam yi ñépp a mat imaam sëtam ya donn nañu maam ngir mam awoon lañ faf ne kaam déeful xebet ci ñoom mbiram cheikh bamba noon na waaju xëy jëfal ko ngoor ca ñeentu pay jëf jënn jëf jagoo ca may yu toll nii moo ko fi am ne yàlla moo lay njëkk a fay yónneen ba fay ak bamba kay cheikh bamba mi cheikh cheikh mbàkke mi gor la su moom it dafay ñëw ak fayam moo tax ba mag ña fekke woon jataay ba sëñ bi waxe woon wax ji la ñoom ñépp bayoon jébbal ko nooru cib ëttam mook bamba daawuñu soree fu mu ko gisaa day daldi ree ñoo xotti gor te duñ goree takum ci wàcculub àndam neefuma taalub taalitam saamak ji rof ca gilinam waaju ca roppe am matam xam leen ne moo soo ko fayam cheikh Ibra moom mi xamoon cheikh Bamba dëgg nee na woon sëriñ bi baatinam bu duun néegub ndeyam la ko xëlam ba fa defee ñetti atam la am fa moom dayob ngërëm boobee la doon seeree cëram lam wax ci moom mat naa xalam sëriñ ma ndumbe mbàkke moom fukki bi at la toog fa moom di ko jëfal lu mu am ci koom jébbal ko fendalul ñaqam sëñ Fàllu Mbàkke ma ko ndaw da ko bëggoon bëggeel gu law ne moo ko jàngal ba mu raw mbooleem ku ñuy nawuk xamam moo tax ba mbaax xaacu na jooy bisub demam xam-xam ne wooy dunyaa ka yées tama na njuuy lum jokk dog ko mët la sàmm sëriñ bi bañ ko dikkalee naa ko borom bii dundalee moo jël sa mag ja tey jile daaraas woon bay bëgg dem daan ne dul woon alquran ak waxi sibtu àddinaan giñ naa ne dootuma fanaan ci àdduna ak mënug waram sëñ Mbàkke Buso ma ñu miin ci xam-xam ak sellu doxiin moom la sëriñ bi yabaloon dëxal ko jox koy yëbbalam na ngeen ko def mbàkki xewar fa sëñ Buso bi ma ko yar su ngeen wattoo ba noppi far seereel ma tuuti ci mbiram bañ taxawoo ngeen ji yonin ba léegi suuf tiimul ku gën biib sang fii ba fa yaman amuñ ku mel ne moom ci gëmm dundam gi lépp amalul bur yàlla bor amalul mbindeef yi àq booyalul waaram yu loolu doy na ndam sëriñ bi dellu naa ko xam na daldi di def bayit yu jëm ci magi mag waxi jëfam ndax maas gi roy ndax maas gi roy ko ci ci ci ngëmam sëriñ su baax sépp a ko wekk na ngeen ko gëstu jéem a log cofeel ci moom mooy magi mag di ngeen ji kuñ wettal xolam maraasi yañ defoon ca moom ak lañu seere ciw meloom doyoon na kuy xamle jikkoom baawaa ji umpalay mbiram gis naa ko wax ci ay bayit bay wax ne nam mel ci njullit ab nang ko rek mat gamu mat mësee fu caaraasem kemam jot nañu xam ko xam gu wér ak donte day kuñ la mi mbir yàllaa ko dettal dotti ndabi cër yoo xam ne wéetan ak amam fii doy na sëkkub yamuwaay doy yoon wu ëmtil jeexukaay waaju ko aw ba fay daay ci aw njaqam du tax mu yem Shuaybu boo yeboo ne xiim wiccax tafendal say xaliim loo wax ci moom mu ma téyeem ki yàlla rekk xam mbiram li duuf ci ay mayam du xaaj suñ dellu seeg yeneen i daaj ndabul kañam daañu ko taaj mu neex te wér te am xorom yal na ko yàlla yal na ko buur dolli nga neel xojjil ko leer ya moom jabeel xéewal yu yaatu lool tëbeel ba mu jóor ca mbooleem ku ko gëm wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh baarakallaahu sëriñ Abo xam naa bu ma sëñ Mor xam sa diine jege woon day moom laa jox micro bi dëgg yàlla waaw jaadu na lool waaye yàlla na yàgg rek barke sëñ tubaa tabaarakallaahu am na solo lool mbokk yi kon nu mu jëkkanteeg waxtu wi rek lim délégation yi nga xam ne teew nañu fi ni ma ko waxe woon ci njëlbéen ngi nag la ay boppi délégation rek waaye ni ñu wootee woon nu ko raw lañu ñu wuysee fenn fu fenn fu na rek mboolee jóge na fa ñëw ñëwin woo xam ne day wane ne ñoo yéen ñoo bokk bis bi ñëpp la bis bi yitteel bokk na ci ñi fi teew waa kër sëriñ Mouhamadou Gaye Jammoo ci njiitul sëriñ Jili Mbakke waa kër sëriñ Balla Coro ci njiitul sëriñ Abdourahmane Mbakke waa kër sëriñ Fallou Ndiaye ci njiitul sëriñ Cheikh sëriñ Cheikhouna Ndiaye Hizbul Murid ci njiitul sëriñ Modou Fall mooy waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñu doon wax léegi waa Mbusoobe Mbàkke Bawal ci njiitul sëñ Amaat moom sëriñ Masamba Bousso sëñ Amaat Bousso ak sëriñ Masamba Bousso waa kër sëriñ Mor Penda Mbàkke ci njiitul sëriñ Cheikhouna Mbàkke waa kër sëriñ Abdou Diat Duyooli ci njiitul sëriñ Saalihu Mbàkke sëti alxaaji baara ci njiitul baay sëriñ njaay waa kër sëriñ ndaam abdourahman loo ci njiitul sëñ abdoulahat loo waa kër sëriñ afe waa kër sëriñ afiye moom ñoom itam teew nañu fi waa kër soxna faati kinne ci njiitul sëriñ abdoulahat buso maxtaar daayira muxaddamatul xidma ci njiital waa kër soxna faati kanni waa kër soxna Faati Kanni Mbakke ci njiitul sëriñ Abdou Lahad Bousso Moxtaar daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ Abdou Lahad Bousso Cerno waa kër sëriñ Moustapha Njaate ci njiitul sëriñ Mudu Njaate Mbakke waa kër sëriñ Mbakke Kajoor waa kër sëriñ Mbakke Kajoor wax dëgg yàlla délégation bi ñu def wone na ne ñoom ñoo yéen ñoo bokk bés bi délégation bu am solo la mbooloo mu bari lañu àndal wax dëgg yàlla euh, waa kër sëriñ Baara Jenn ci njiitul sëriñ Saam Jenn daayira Rawdu Rayaahiin ci njiitul sëriñ Mor Buso waa kër sëriñ Mbàkke waa kër sëriñ Mbàkke Soxna ci njiitul sëriñ Abdu Xaadir Tuuba waa kër sëriñ Mbàkke Kanni ci njiitul sëriñ Mbàkke Kanni Sulamul Wusool waa kër sëriñ waa kër sëriñ Mbàkke Buso ci njiitul sëriñ Saaliwu Buso waa kër sëriñ Masamba Bousso Fati ci njiitul sëriñ Jili buso waa kër sëriñ Masamba Kanni Bousso ci njiitul Baye Dam Bousso Moxtaar waa kër sëriñ Mbacke Kajoor ni ma ko waxee noonu ñoom seen seen seen seen délégation sëñ mo sëñ sëñ Maam Mor Seex tedd ci la bokk ak sëriñ Mbacke Ngaabu ak sëriñ Jili Mbacke Gasaan ñuy ànd ak mbooloo mu baree bari moo xam ne rek firndeel na seen taxawaay ci bés bi waa kër sëriñ Mbacke Ramata ci njiitul Cheikh Touba Mbacke xalifa sëriñ Mbacke Ramata waa kër maam Cheikh Anta Mbacke Darou Salaam ci njiitul sëriñ Amdi Mbacke Amidoun waa kër sëriñ Baara Dieng ci njiitul sëriñ Xaadim Dieng ñooñu ñëpp bokk na ci ñi nga teew ñi nga xam ne teew nañ fi ak suñu mbokk njatara yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo bokk bés bi loolu lépp ay délégation la yoo xam ne teew nañu fi teewaayu euh, bokk ak yéen bés bi muy lu am solo ni ma ko waxee rek fii daal fépp foo xam ne noonu lañu wootee woon bés bi li ko dala ci njabootu sëriñ Touba la ko dale ci njabootu seex yi nga xam ne ñoo ñoo nekkoon ci ci ci ci ci ëttum Serigne Touba ñëpp ànd nañu ñëw fii ci bés bi waa kër sëriñ Fallou ci njiital Serigne Galas Bamba waa kër sëriñ Mor Doj ci njiitul Serigne Khalil Mbakke waa kër Serigne Njoogu Mbakke ci njiitul sëriñ Babacar Mbakke ñoom ñëpp teew nañu fi teewaay boo xam ne ni ma ko waxee ànd ak bokk yi ngir barkeelu ci bis bu tedd bii ñuy fàttaliku sunu mag ju tedd jii di ñaan yàlla yokk leeram ci barke sëriñ Touba te yàggal fi njaboot gi kon li def rek mooy dugg ci kàddu yi dana na jox kàddu gi sëriñ Amath Bousso Njaaña